yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeent fukkeelu njàngale mi ak juróom-ñeent yeesu dekki na nanu bamtu nettali yi weesu benn ndax yàlla xamoon na ne dinañu daj yéesu ci bant waaw yàlla tëraloon na lu yàgg ne yéesu mooy set bi mu dige dinañu ko daj ci bant mu dee ngir fay bàkkaari nit ñi ñaar ndax seetaane dafa daan yàlla bi ñu daajee yéesu ci bant bi déedéet yàlla ko tëraloon yéesu fay na sunuy bàkkaar bi mu deewee ñett ndax yéesu moo doon sët bi yàlla dige woon waaw ñeent ndax yeesu matal na lépp lu yonent yi waxoon ci mbirum sët bi yàlla dige waaw mbind mu sell mi neena ci Macë saar ñaar fukk ak juróom-ñett aaya benn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 ay yéreem weex tàll ni perkal ñi doon wattu tiit bay lox daldi mel ni ñu dee noonu malaaka mane jigéen ña bu leen tiit xam naa ne yéen a ngi wut yeesu ma ñu ca bant ba waaye nekkatu fi ndaxte dekki na ni mu ko waxee woon ñëw leen seet fi mu te ngeen dem bu wax ay taalibeem ne dekki na te jiitu ji na leen galile foofa ngeen koy gisee lii la leen doon wax bu leen fàtte ràññee melokaan yàlla yi ci nettali bi yeesu dekki na nettali bi mu ngi aju ci ndekkite yéesu bu ñu daajee yéesu ca bant ba ëllëg sa moo doon bësu ndoflaay bi sëriñ yu mag ya ak farisen ya dem ci pilaat ñu wax ko mu yebal ay xarakat ngir ñu wattu bàmmeel ba dañu fàttaliku woon ne yéesu waxoon na ne dina dekki te ñetteelu fan wa ganaaw bu deewee dañu xalaatoon ne taalibe yeesu yi dinañu sàcc néew ba ngir mën a wax ne yeesu dekki na noonu pilaat yebal ay xarakat ñu wattu bàmmeel ba ñu def màndarga te doj wa ñu tëjee bàmmeel ba ngir ku ko ubbi ñu xam ne ubbi nañu ko gannaaw bésu noflaay bi muy dibeer ca suba teel suuf si yëngu yëngu bu métti menn malaaka wàcce asamaan randal doj wa ñu tëjee bàmmeel ba malaaka ma amoon na melo melax te ay yéreem weex tàll xarekat tiit lool ñuy lox mel nañu dee noonu ay jigéen ñëw indaale cuuraay ngir néew ba kenn ca jigéen ña mu ngi tuddoon maryaamam magdala yéesu dàqoon na juróom-ñaari rab yu nekkoon ci moom jigéen ña jaaxle woon nañu bi ñu gisee ni ñu rendalee doj wu réyee noonu ñu dugg ca biir bàmmeel ba fekk am malaaka mu sol mbubb mu weex tàll toog fa malaaka ma ne leen tiit yéesu nekku fi dekki na jigéen ña dawee ca bammeel ba maryaama daw wax taalibe ya li xew mu gis pierre ak yowaana ne leen jëlee néew bi ci bàmmeel bi te xamuñu fan lañu ko yóbbu noonu pierre ak yowaana daw dem ca bammeel ba bi ñu agsee ca bàmmeel ba fekk fa lu dul càngaay la ñaari taalibe ya daldi ñibbi maryaama delluwaat ca bàmmeel ba mu taxaw ci biti di jooy bi muy jooy nag mu sëgg yër ca biir bàmmeel ba mu gis ñaari malaaka yu sol lu weex ñu toog fa néew ba nekkoon ñu laaj ko looy jooy mu tontu leen jël nañu sama boroom te xamuma fan lañ ko yóbbu mu gestu gis yéesu taxaw waaye xamewul woon yéesu yéesu laaj ko ne jigéen ji looy jooy koy seet mu foog ne boroom tool ba la ne ko sëriñ bi bu fekkee yaa ko yóbbu wax ma foo ko denc ma jëli ko noonu yeesu ne ko maryaama mu gestu ko ne ko rabbuni rabbuni mu ngi tekki kilifa gi yeesu ne ko bu ma téye ndaxte yéeguguma ca baay ba waaye demal ne samay mbokk maa ngi yég ci sama baay bii seen baay te sama yàlla ji seen yàlla noonu maryaama dem ca taalibe ya wax leen ne gis na borom bi mu nettali itam li ko yeesu wax te saa yooyu xarekat ya doon wattu ba dem ca sëriñ yu mag ya nettali leen li xew njiit yawut ya daal daje ñu fay xarekat ya xaalis bu bare ngir ñu wax ne taalibe yeesu ya ñoo sàcc néew ba noonu xarekat ya jël xaalis ba def li ñu leen sant wax jooju la yawut yi gëm ba tey jii deewu yéesu ak ndekkiteem am na ni ko yeesu waxe woon fàttaliku leen ne yeesu waxoon na ay taalibeem doomu nit ki war na sonn lu bare njiit ya sëriñ su mag sa ak xutbakat ya dëdd ko ñu rey ko mu dekki ci ñetti fan beneen yoon itam yéesu waxoon na daaneel leen kër yàlla gi ma daal di koy yëkkati ci ñetti fan. yawut yi dañoo defe ne kër yàlla gi ci Yerusalem la yéesu doon wax xamuñu woon ne yeesu boppam la doon wax fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn lan moo xew ca bës ba tegu ca bésu naflaay ba suuf si yëngu woon na te yàlla yónni na menn malaaka mu randal doj ba tëjoon bàmmeel ba ñaar lan moo dal xarekat ya Pilaat yebaloon ngir ñu wattu bàmmeel ba xarekat ya tiitoon nañu lool ñuy lox mel nañu dee ñett lan la jigéen ña gis bi ñu demee ca bammeel ba fekk nañu ñu randal doj watajoon bàmmeel ba bi ñu duggee ca bammeel ba fekk ñu fa néew ba am malaaka lañu fa fekk mu toog ñeent lu malaaka ma wax jigéen ña malaaka ma nee na leen bu leen tiit yeesu nekku fi dekki na juróom lan la Pierre ak Yowaana gis bi ñu demee ca biir bàmmeel ba gis nañu càngaay la waaye gis ñu yeesu juróom benn ba Mariama delloo ca bàmmeel ba te gis yéesu lan la ko Yeesu wax. yéesu ne ko bu ma téye ndaxte yéegaguma ca baay ba waaye demal ne samay mbokk maa ngi yéeg ca sama baay bii seen baay ca sama yàlla ji seen yàlla. juróom ñaar lan la yeesu bëgg wax foofu dafa bëgg a wax ne mu ngi dellu ci yàlla baay bi ko yónni woon yeesu mooy yàlla dafa ñëw kaw suuf ngir gole nit ñi ci seytaane bakkaar ak dee léegi liggéeyam mat na muy dellu ci yàlla ay taalibeem itam mën nañoo wooyee yàlla seen baay ak seen yàlla ndaxte deretu yeesu def na leen ay rakam ak doomi yàlla. juróom-ñett lan la sëriñ sa fay xarekat ya ngir ñu def ko. fay nañu xarekat ya xaalis bu bare ngir ñu wax ne taalibe yeesu ya ñoo sàcc néew ba. juróom-ñeent lan la Yeesu dina ko dal Yeesu waxoon na ay taalibeem doomu nit ki war na sonn lu bare njiit ya sëriñ su mag sa ak xurbakat ya dëdd ko ñu rey ko mu dekk ci ñetti fan beneen yoon itam Yeesu waxoon na danañ leen kër yàlla gi ma daal di koy yëkkati ci ñetti fan yawut yi dañoo defe woon ne kër yàlla ga ca yerusalem la yeesu doon wax xamuñu woon ne yeesu boppam la doon wax fuk lan la ñu ndekkital yéesu di woon wane na ne yeesu mooy doomu yàlla ji te mooy musalkat bi ni mu ko waxee woon bu nekkul woon doomu yàlla ji ak musalkat bi kon yàlla doonu ko dekkil wane na ne yàlla nangu na peyoru sunu bàkkaar bi yeesu fay bu yàlla nangul woon peyoru bàkkaar bi yeesu fay kon yàlla doonu ko dekkil fukk ak benn ndax seytaane daan na yàlla bi ñu daajee yeesu ci bant déedéet ndaxte deewu yeesu bokkoon na ci li yàlla tëraloon seytaane yàq na kóllëre diggante yàlla ak aadama ci toolu àjjana seytaane bëggul nit am kóllëre ak yàlla te bëggul it nit am cofeel ci yàlla yeesu dee ngir sunuy bakkaar ngir fasar kóllëre ci sunu digganteeg yàlla te jubali yàlla fukk ak ñaar naka la yàlla wone seytaane dooleem yàlla dekkil na yeesu ngir won ne yeesu daan na seytaane te musal nanu ci mbugalu bàkkaar yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla mooy boroom doole yeesu kirist dekki na lu mu diggee def ko yàlla wax na ne sët bi mu diggee dina daan seytaane yéesu dee na ngir sunuy bàkkaar te musal nanu ci seytaane yeesu kirist nee na bu deewee ba mu am ñetti fan dina dekki te def na ko beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yéesu feeñoo ay taalibeem